danga ci weddi sëriñ ndax am na ñu ma ko wax ma ni ko ndokk xanaa ma wax la ma daan wax rek je suis responsable de ce que je dis je suis pas responsable de ce que vous comprenez man daal li ma mën a gardo li ma mën a garanti mooy li may wax génnee ci sama gémmiñ waaye la nga xam ne moom ngeen di comprendre la ngeen di dégg ak ni ngeen koy déggee loola man awma ca responsabilité ndax nag li mu laaj ci fulla ak fayda ak jom ak ngor laaj ko ci gëstu laaj ko ci néew na bari na ab xam-xam laaj ko ci ay teggin def naa ko ca ba képp koo xam ni kii bëgg ngaa dégg yaakaar naa ne danga ca dégg ku ca dégg nag lala la soob kooku yow la engagé man ku ma xam xam ni duma weddi sëriñ mukk mukk ci àddina te yaakaar naa ne senegal gi tam nag nit weddiw fi sëriñ wala boog ngay atte mooy koo xam ni ki gëmul sax yàlla ni ko bind ndax ku weddi sëriñ ku nekk nag doo ko layal doo ko layyil li gën a tuuti ciw déggin laa wax li gën a tuuti ciw déggin ci sëriñ mooy ki nga xam ni kii jàngal na la dara te yaakaar naa ne képp koo xam ni kii yaa ngi ci kaw suuf rawatina ci Sénégal gi gis nga ne am na fi ñoo xam ni ñi ngi jàngale dara néew na bari na kon ñooña lu ku leen tudde leneen lu dul sëriñ xamuloo li xew lan mooy sëriñ sëriñ day ñetti bayit ci yoo xam ne yi mel na na matale na wala ñeent mu ne kullun min al qawmi cheikhun aalimun wariun minhum murabbin bi bi xaalin waxdaha minhum murabbin bi askaarin wa xaalaati minhum muraqin bi xaalin waxdaha abadan minhum murabbin muraqin ishaaraati mu ne képp koo xam ni kii dañu ko mën a tudde sëriñ ci gaañu baax ña nee na aalim lay doon boroom xam lu kenn dul nattable day xam alquran xam xadis xam yeneeni xeeti xam-xam alquran ak xadis nag moom mënta ñàkk nee na da ciy doon wariya ku ragal yàlla ku ragal yàlla waaye day doon nit ku mûr nit ku ñor xom du ca at ye nag du ca at ye mën na nekk sax waxambaane bu dëgër waaye yàlla yenkewel ko loola nga xam ni kon nee moom moomu bu ngeen àndee yàgg moom dafa lay jox ay xeeti jaamu yàlla waaye moom ci boppam rek jëmmam day daal di doon jëmm joo xam ne danga cay gis loolu ñuy wax usdatun xasana da nga cay gis loo mën a roy ca jëmmam ja loo mën a téye ca jëmmam ja loo xam ni day jeexital ci yow ba nga xam ni su yàggee da ngay mujj mel na moom wala nga romb ko laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana moom la suñu boroom wax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sëriñ bu jëkk ba moom royukaay bi jëkk ba mooma lépp lu ñu xam tey ba di ko jëfandikoo fii sunu àddina ak sunu àllaaxira bari na ci loo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko tibbe ji ñun ñun jullit ñi bokk ak ñeneen xëy na kon ki nga xam ni kii moom moo lay won yoon wi comme ni nga xamee ne noonu la yonent bi nekk woon uswatun xasana ibrahima nekkoon ko moom ci boppam uswatun xasana ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni kii yaa nga ca yoon wa di ko wone kenn mënu laay mucc mucc ci tudde la sëriñ mu ne képp koo xam ni kii la di wax naan wa tabi sabila man anaaba ilayya jaaral ci yoonu ñi nga xam ne ñii kat dem nañu ba yàgg xam ni man dong maa fi ne man yàlla ñu ñu wëlbatiku jëm si ci man nee na jaaral ca seen yoon wa kooko mooy sëriñ mu ne kullun xabirun bi adwaa'il qulubi maan yakfi lmuridina anwaa xururaati nee na dañuy xam woppi jamono xam woppi yi nga xam ni képp ku ko ku mu dal mën na laa jural texee di fii ak fa ñu jëm ëllëg nga xam ni rëy nga ca biir bewa nga ca biir soxora nga ca biir siisa nga ca biir iñaana nga ca biir nga xam ni da jural fen njaaloo naan sàngara lekk riba rambaaj mu ne jikko yooyu dañ koy xam ñoom sëriñ soosee waaye duñu ko làmboo yooyu jikko bal dañu koy jéem a dindi ci ki nga xam ni kii yàlla dogal nañu dajeeg moom ndax dañuy xam saafara ya kon mooy xam nañu pakk yi xam nañu fu mu nekk xam nañu nu ñu mën a fexee ba nga mucc ca yow kon ki nga xam ni kii dafa jor yor sa ruu gi yor sa xol bii di la ko tegal ci yoon wu jëme ci siraatal mustaqim kooku mënoo mucc ci tudde ko sëriñ ak ku mu mën a doon ki nga xam ne nag moom laa mënta tudde sëriñ man ki nga xam ni moom laa mënta tudde sëriñ mooy kaay kaay def ma nit ku woom ba giijal yow ma saxal la ci ñàkk jox ma sa alal jëndal oto jox ma jox may montre yu rafet jox ma yëre yu rafet jëndal ma téléphone yu cher a cher dee ma jox xaalis man ma def la mbaam sëf moo xam ni fu ma la soxlaa takk saa yu ma paree amul contrepartie dama lay dàq nga dem nga xam ni réeral doomu aadama mooy seen taxawaay jéemuloo yittewoo ñu xam seen farata alxuraan mi gën a ñàkk solo ci wàllu jàng wax ngeen jéggal ma waxin wi alxuraan mi nga xam ne mënut a ñàkk moom ci nit xam ko yow sëriñ bi nanguwoo koo jàngal sab taalibe ndax alxuraan moo jiitu ci nit ki war ko jàng nga war koo jàngal ginnaaw ba farataam ak sunnaam déedéet loolu sequ leen ko nga war koo jantal ci mu gën a bëgg ay mbokkam gën a bëgg way juram gën a farlu ci njabootam déedéet jëmmi boppam ja sax faf dangay bëgg mu gën di dof di gëna a rakkaaju di gëna gëlëm di gëna réer ngir nga mën ko gëna a jëfandikoo ci li nga bëgg loolu laa dul ànd ban li ma dul ànd nag mooy te duma ci ànd mukk mooy l'exploitation de l'homme par l'homme nit koo xam ne kii daal dangaa jàpp doomu aadama di ko jëfandikoo jëmewoo ko ci yàlla lu la neex ak lu lay jëriñ képp ci nga nekk ak moom kooku laa ne man duma ci ànd te mënuma koo tuddeb sëriñ nga xam ne yow mi nga xam ne yaa koy topp leeg léeg day mel na ak tayeef newu ci ndax dangay gis ne dàqu jàng gënulaa farlu ci diine ji gënulaa bëgg lu baax léeg-léeg sax nga gis ci moom jikko joo xam ji yow jikko jooje ñemewuloo ko jikko nga xam ne lan la lay euh, gëne danga naan moos aw sant wala aw tur siiw am daraja ci ci àddina loolu moo leen di boole te loolu ak bari ci suñu réew mi bu ko defee koo xam ni kii yow moo la gën a bëgg àddina luxe boo demee këram bu buñ la newul toogal doo toog ni ko wolof di waxe ferul ijji alquran amu ci soxla fiq buñ ko doon noote zéro lay am te foo ko fekk musiba lay génnee ci gémmiñam ay xuraafaat rek ay xuraafaat ay musiba dong lay génnee ci gémmiñam nga xam ni loo xam ni ngor rek da koo bañ jom bañ ko loola bés bu nekk ci nga koy gis di ko ca dégg sëriñ bu mel noonu mën a toog guddi lëmm wala bëccëgu lëmm di wax nit ñi jëmmi boppam lu mu wax jëmmam la jëm lu mu wax wala baayam lay nettali wala maamam di yokku askanam di ko darajeewoo di ko yokkee darajaam loola mu cay jublu nag ngeen gën a dof gën a rakkaaju gën koo topp gën koo gëlëmal boobu sëriñ endoctrinement raxas sa xel mii ba mu set set wecc wecc wecc lépp luy baax ak yiw mu dindi ko ci nga xam ni la xale ba doon bañ ma wax ko comme xaj bu ñu dressé xaj bu ñu yar tàggat ko loo ko sant mu def ko mi ngi fii ci réew mi te ku ko weddi da ngay weddi lu la neex rek loolu day képp koo xam ne kii ànd nga ci ànd nga ci lu neexul yàlla neexul yonent bi sallallahu alayhi wa baatu sëriñ dañu daan wax sax ne mi ngi jóge ci sa njëriñ ki lay sa njëriñ nga xam ne day doon ab sëriñ daara di jàngale alquran wala muy kun yor daara di jàng di tëral xale yi fiq wala moo xam ne kii sax boo ñëwee lu gàtt-gàtt ma ngi lay wax jub ak mbaax masalan koo xam ni waxtaanam yépp ci luy jubal nit ñi la bokk kooku kenn mënta mucc ci tudde ko sëriñ waaye bu dul kooku nag mooy ki nga xam ni moom la yàlla suñu boroom di wax ci yow ci alquran naan al axillaahu ma izin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin nee na ñi nga xam dañoo xaritoo woon dañoo àndoon nee na bés ma ñoom ñépp dañuy doon ay noon ba mu des nag ñi nga xam ni ci ragal yàlla ak ngëm yàlla lañu àndoon moom la suñu borom di nettali ci alquran wa min annaasi man yattaxisu min dunillahi andaadan yuxibbuunahum ka xubbillahi wallazina aamanu ashaddu xubban lillahi walaw yara allazina zalamu is yarawna alazaba an alquwata lillahi jamian wa anna allaha shadidul azab sadaqa allahu alazim yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jàpp ñeneen ñu dul yàlla te cofeel ga ñuy am ci ñoom déggal gañ leen di déggal topp gañ leen di topp mooy gën a tar fuuf cofeel gi yell ci yàlla sax moom nee na nag waaye yàlla moom teewul ñi nga xam dañoo gëm yàlla ñoom seen cofeel lay gën a rëy gën a fës gën a am am solo nee na bés ba nga xam ni nee na ñu gis ñoo ña tooñ ñu gis ne kàttan yàlla rekk ko am bés pénc may tax suñu borom di wax te suñu boroom nag bés boobee ma nga fa dencit mbugal moo xam ni ku ne xam na kañ koy jëmale mu ne bës boo xam ne istabarra allazina tubiu min allazina tabaun wa raawul azaaba wa taqattaat bihimul asbaab wa qaala allazina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kazalika yurihim allahu a'malahum xasaratin alayhim wa ma hum bi xaarijina min annaar yàlla ne bés boobu nga xam ni ñañu toppoon dañuy setti konteeg ña leen toppoon dañuy setti konteeg ñoom hé may leen ñu ñun forcé wuñu leen woon ci topp ñu bu mu bu kenn may coow nee na mbugal mi daal di taxaw ci seen kanam ñu dagg seen diggante la leen liyee woon nee na acca taxaw leen nee taxaw leen nii ña toppe woon nag nee na naan ay ñun bu ñu delluwaatoon àddina ay bu ñu amaatoon pexe du dana nii ngeen seete ci ñu ñun noonu ñu sete ci ñun daañu ko seete ci ñoom yàlla nag daal di indi seen jëf ya muy jëf yu perte parce que ba ñuy topp topp ñu yàlla nee na buñ bés boobaa nee na duñu génn safara duñu génn safara ñoom ñooña suñu boroom waxaat wa man yaachu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum an ilsabil wa yaxsibuuna annahum muhtaduun xata ida jaaanaa qaala yaa layta bayni wa baynaka bu'da almashriqayni fa bi'sa alqarin yàlla ni képp koo xam ne kii bàyyi nga fi yàlla fàttaliku kook tudd ko nee na dama lay boole kub seytaane mu lëkkoog yow nee na ñoom seytaane yooye ñoo leen di féréwli jële leen ci yoonu ja baax ba waaye du tee ñooña dañuy yaakaar na ña nga ca lu baax looloo li ciy musiba ndax dangay ngay ànd ak kub seytaane ànd ak njuuma joo xam ne ji dangay yaakaar ne ki nga àndal mooy waaja fekk du waaja nee na ba ba ngeen di ñëw fii ci sama kanam nee na doo mujj lu dul naan ay suma xamoon yàlla konte sama digganteek yow penkook soow lu ko gën a yaatu gë nekk ca fa biisal qarin yaa bon yaa bon yaa bon yàlla suñu borom daal ne walan yanfaakumul yawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun nee na nag dara mënu leen fi amal njëriñ tey ji lu dul da ngeen di ànd yéen ñooñu nga xam ne yéen a àndoon te yàlla taxul di naxante di warante di raggalante ginnaaw bës boobu dangeen di ànd dugg ca ca biir mbugal ma bokk ko yéen ñépp bu ko defee mbokk yi mu leer nag yaakaar naa ne leer na ci ku mu bëgg mu leer ci moom xam naa ne sëriñ am na wax naa leen kan mooy sëriñ wax naa leen li war a liyee nit ak sëriñam loolu moom moo ci doon suñu leeral asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala